bismillahi rahmaani ci njàngalem Sëriñ Tuuba mu sell mu neex mu teey mi ci ñaar téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom ñett Sëriñ Tuuba xaadaloo la maxtaloo bi mu sancee Tuuba jël si na Sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala anhu mu ñëw fa ni ko ñeenti néeg yi laa fi am benn bi ci ngay dal bi ci des boo bëggee noppalu dem fa bi ci des li nga may liggéeyal ci am njàng ak i ñaan moom nga fay defe bi ci des fi la ba yi ak mbokk yi di fekk man fom naa sama yére fanaani kër Manumbe radiallahu taala anu mooy fii daare kaamil nekk tey saa su waxtu julli jotee Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaar lahoo ñëw nodd jiite ba muy juróom benn weer siiw na Sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala anhu mas naa wax Sëriñ Tuubaa xaada la woo law maxtaar la woo nit ku baax lu muy maye ku ànd ak yow dana am lu ko ëpp sëriñ mi ni ko lu tax nga wax ko mu ni ko danga gën képp ku ñuy àndal Sëriñ Tuubaa xaada la woo law ni ko loolu képp ku ko mënoon a wax dana rëy fi man waaye wax gi nga ko wax la ëppe fi man ndax xam naa ni doo waxe bakkan waaye li muy rëy rëy ab soññee laa ko jàppe siiw na sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala anhu bi mu leeralee sëriñ Tuuba xaadaloo la maxtar loo ak jébbuloom ci Tuuba sëriñ bi dana ko baay Ibrahima loolu boo ko defutoon am na loo xam ni duma fa mën a àgg ak yow ndax daa am loo xam ni moomuma ko dañu ma koy joxeloo ki ñu ma koy joxloo mooy ku wax lii nga wax ci làmmiñam ba nu dégg ko mu koy jëfe ci ay cëram ba ñépp xam ko waaye saa boroom nee na ma yaay saa kilifa dee ma digal di ma tere wa shawirhum fil amri loolu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa la ko sunu boroom waxoon te moo gën képp ku ñu bind keroog ba ñu ko ko waxee ak jantub tey jii ku la gën ku muy diisool moo la gën yàlla nag nee nga wax li nga bëgg ci jataay bii ma defal la ko adduna ak alaxira mu daldi wax la mu bëgg siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo laaw maxtaarlawoo mas naa wax sëriñ mbàkke kajoor radiallahu taala nga dëkki guddi ak bëccëg lekkoo naanoo noppalu woo waxoo kenn am na lu tax la sa dal dama laa bëgg a dimbale di la xamal ni loola am na boroom teg tekkil laxasaay gi te dox ni nga mane te ñaan yàlla mu may la lu kawe sa njort siiw na sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo mas naa wax sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala koor dañu ci jublu not bakkan bu demee ba nottu ci da nga ko yërëm te wàññi ko loolu ñi woor bis bu set la ko daan wax siiw na sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala yoon wi mu mujj siyaar ci sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo ca Jolof sëriñ bi dani te day tàggoo si saa boroom xamal na ma ni day bëgg a làqu siiw na sëriñ Mbàkke Kajoor bi mu làqoo sëriñ Tuubaa xaadaloon law maxtarlawoo dani ceerno yéen ñépp na ngeen dem kudul xomar ànd moom te taxaw ko daa di woowaan maam ceerno radiallahu taala anhu ni ko boo demee nga toogal ma foofe wuufal ma njaboot ga ndax bëgguma loole mu fa jaamu yàlla subhanahu wa taala ak loole mu fa liggéey ñuy dem ba muy naax saay man maa ngi fi jolof mu dem am fa ñeenti at ci ndigalu Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaara lahoo na Sëriñ Mbàkke Kajoor radiallahu taala xanu am na ñeenti doom yu jigéen yoo xam ni ci waa Sëriñ Tuuba xaada lahoo lañu bokkoon ñoom ñépp bokk na ca waajuru soxna meen ngaabu ak way juru soxna may radiallahu taala anhunna siiw na am na ñu doon saaga ba ko sëriñ tuba xaadalahu la maxtaloo déggee bokk na ca lam wax loolu ngor si wax kat maa ko dugal ci yoon wi dama ko doon toje ab gol waaye dama cee të dootu andi jenn lor siiw na gis nanu batay na mu daan def te mooy di dóor ñi koy wax ak fa mu mujjee li nu war mooy di ko moytu ndax doonte du indi lor itam taamuwu ko ci nun xoolal ni mu waxe rek kon daa bëggoon mu deñ bi mu demee ba mu tëticc mu génne lor ja wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalowoo la maxtaaralowoo mas naa wax kër gi am na lu fi am loo xam ni bu fi fekkoon ceerno du am siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalowoo la maxtaaralowoo mas wax Sëriñ Daam Jaane radiallahu taala anhu deel ñaan sa boroom te xereñ lu mbir rëy rëy ñaan gu nangu la xam nga bu ca gën mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko làmmiñ wa nga tooñewul sa boroom te làmmiñu jàmbur kenn tooñu ci sa boroom siiw na loolu mooy sàkku ñaan wallahu alam soxna ruqiyatu ture radiallahu taala anha sëriñ tuuba xaadalaw laaw maxtaar la woo daana ko sant ay toogu bu noppee yet ko sëriñ daam jaane ak ñami àndal di bind radiallahu taala anhum siiw na ñëwee ci njàngalem sëriñ Tuubaa mu teey mu sell mu neex mi ci ñaar téeméer ba ak ñeent fukk sëriñ Tuubaa xaade la wala maxtaare la naa jox soxna Roqiyatu Ture radiallahu taala anha mbubbum sëriñ daam jaane radiallahu taala anhu ni ko ñawal ma ko booba da ko wékkoon bàyyi fa ba mu ko ñawee ba nopp sëriñ bi delloo ko fa mu wekke woon siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaarlowoo mas naa romb sëriñ moor jobbe radiallahu taala anhu muy nelaw mu jàpp ci bakkanam mu yeew sëriñ bi ni ko doganteeg sa bakkan bii menn mamar du la tane siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaarlowoo am na ku mu masa laaj luy sab dog ci alxuraan mu ne ko juróomi hisib sëriñ bi ne ko loolu dogub gone la ak jigéen defa woon naa weesu nga foofu siiw na wajaadali bi kasrati bi kasrati tilawa wa zikri wa salati bil halawa yal nañu sax ci dog yi juróomi hisib fukki hisib fukki hisib ak juróom ak ñaar fukki hisib ak subu wallahu aalam am na naar bu tudd muhammadul xayre radiallahu taala anhu bu daan noddal sëriñ Tuuba xaadalawu la maxtaar lowoo bi mu faatoo sëriñ bi bëgg kaneen ku koy noddal sëriñ Masamba radiallahu taala anu ni ko defe naa ni moor jaxate radiallahu taala anu dana ko man ba mu ñëwee sëriñ Tuuba xaadalawu la maxtaar lowoo ni ko dama soxla woon ku ma noddal Masamba ni ma man nga ko mu ni ko nangul naa ko waaye man gi moo ma wóorul nodd sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaloo ni ma sàmba lam ma waxoon dëgg la képp ku ma fi masa noddal yokku naa la nga wax wala ma wàññiku timis la njëkk a noddu ba mu del see sëriñ tuuba xaadalawoo law nu maxtaaloo ni ko yëg nga ni sa baay dem na àjjana te te ci sa noddu gi la la amee mu ni ko kon jëfal la moo am njariñ ndax li ma xam ci lu mu jëf ci lu yiw bu ko ca dara jariñul sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaanoo ko jamu yàlla ak sa baay googee nga doon naw xam lu mu tollool daraja mu ni ko déedéet mbàkke sëriñ bi ni ko mën a daw ak fas wu rëcc sonal na ko te amul te amulul njariñ boroom fas wa ba mu koy sonne da ko wéeru toon ci ku ko mën a àggale ci yàlla subhanahu wa taala siiw na naka noonu misaaloon na ko ci waaje lu ñu for mën naa waaj waaye mënta wàlli walaw alam am na bis saxaar gi di yuuxu Sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw maxtaar lahoo ni loolu lu mu ñu wax ko ko sëriñ bi yëkkati baaraamam jëme ko kaw ni bu yowmal xiyaamee yuuxuk saxaar dana ni mottu noddug moor jaxate ni temm ba mu waxee lii moor jaxate radiallahu taala anhu yuuxu wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw maxtaara lahoo mas naa romb Sëriñ Mbay Jaxate ak sëriñ Amsatu radiallahu taala anhuma ni leen yéen sa yaari gone yii yaakaar naa leen lool daa way wéy sëriñ bay topp ko jàpp ci mbubbam ni ko mbaa yaakaar du tas ci nun sëriñ bi ni ko déedéet am na ay wuute tuuti ci waxe ni ak banu andi woon wallahu alam sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo am na ñu ko daan teel a lool mu di leen sànni suuf naan yéen ngi may nuroog ay ñàngoor siiw na ñàngoor mooy jaan ju mag wallahu alam sëriñ Rijaab Sekk radiallahu taala anhu mas na jëm si ci sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo ànd ak hadiye jamuy joxe romb ay saatu jënd ci ngir boppam ca hadiye ji ba mu joxe sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo la mu ko jox mu ni ko Mor Sekk cantug liy dikk fi man wan na ma xarabuk la juboonte ak siwul doxal jëli ko ba mu ko indee sëriñ bi ni ko moor sekk li ma def ci sa jëmm ji ba foo jaar sa digg ak mbooloo mi nga mel ni ndawal gu xëbbu ay weñ foo jëm ñu jëm fa ba ma ko fi def fekkuma fi dara te ba ma noppee dara topp ca mu ni ko dañuy tuub rekk siiw na xëbbu mooy maam ndawal gu yàqu wala ndawal gu xeeñ bi ñuy indi Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaralawoo fii fi Touba Serigne Cheikh Faatu tak Faati Takko ak sëriñ Dame Diané ak Serigne Bassirou ak ñeneen radiallahu taala anu ñoo nekkoon ca biir oto ba bi ñuy dugg dëkk bi am na ko wax ni danoo agsee te xam nañ ni du ci ñoom sëriñ bi la siiw na yuhallimul hayyul lasi laysa yamut alxalqa anni abadan lastu amut wallahu alam am na ku Sëriñ Tuuba xaada lawoo laaw maxtaar lawoo mas di boyal ba mu ca nekkee sëriñ bi dégg lu mel ni aw saaga mu ni bismillah ko wax loolu sëriñ ma numbe radiallahu taala ni ko yaari gone yooyu dee Sëriñ Tuuba xaada lawoo maxtaar lawoo bi mu xellee ni ma paate fobal kaas yi mu fob di joxe di naan sëriñ diw am bi Sëriñ Tuuba xaada lawoo laaw maxtaar lawoo xelli waatee ni ana ku ñuy wax sëriñ sëriñ Mandumbe radiallahu taala anu ni ko cheikh faat tàg ko mais di doomi cheikh waaye man Mandumba kenn waxuma bi sëriñ bi xelliwaatee ku ne mu jox la bañ a jaar ci saw tur daa di man dama wuuteeg sëriñ sa fi njëkkoon sëriñ sa njëkkoon koo ci liggéeyal ba mu gërëm la dalay jox turu yàlla subhanahu wa boo ko dee sikkar ba am mbóot ma itam boo moyee sa boroom tàggoog moom te doomu aadama ku koy defar te bu tooñee boroom boroomam defar ga yàqu defar ga du wér sëriñ mënu bi radiallahu taala ni ko maa ci raw sëriñ bi ni ma wax leen man nan laay def bu ma ab jaam dee liggéeyal ba ma gërëm ko dama koy def mu diw tur bu juree mu diw tur siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlowoo mas naa wax waa daari kaamil ca njaareem ginnaaw ba mu ko taxawalee bu ngeen jukkee na ngeen ma fi wàccal sama jukki bu leen àggalee te gisu leen ma ngeen jàngal ma dee leen ma jàngal alxuraan ma di leen dundal ba ñu koy def lu yàgg mu wóole ni leen daa am lu mu leen waxoon te moo di dee leen ma jàngal alxuraan ma di leen dundal alxuraan daa dikk fi man ni ma ku may jàng maa lay dundal ñu ne ko nangu nanu li alxuraan wax waaye du nu la du nu la bàyyi nga nuy yor dañuy booleeg yow mbaa mu bàyyi siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax sëriñ Xiisa jenn radiallahu taala anu boo demee moor jaxate na la wax lu mu bëgg nga defal ko ko ba mu ko ko waxee mu ni ko bu yowmal xiyaamee ma bokk ca góor ñee ràmm siiw na ñu ñëw ci njàngalem sëriñ Tuubaa mu tee mu sell mu neex mi ci ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak ñaar sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu mas naa wax sëriñ abdullahi jaane radiallahu taala anhu waxal li bëgg nu defal la ko mu ni ko nga nangu maa moom lu ma waaye def na ko def sa alal sëriñ bi ni ko nangul nanu la ko siiw na sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu mas naa wax ku julli na toog ni fere yi fu ñu demoon ñu ni ko asamaan si daa tooy xëpp biig ci guddi ñu xëy dem ca tool ya ngir sàkk lu ñuy mus sëriñ bi ni xalaas loolee ñu doon def ñi ngi dimbali yàlla subhanahu wa ndax ñaari wama la leen sunu boroom boole wama xalaatul jinna wal insa illa liya'budun doon min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha lii ñu bàyyi ñi ngi bàyyi li leen sunu boroom waral di ko dimbalee ca lamu mu leen warlul te suñu borom lottul ci dara li ñu bàyyi ñi ngi bàyyi li leen suñu borom warale di ko dimbale ca lamu leen warlul te suñu borom lottul ci dara siiw na li waral mu wax lii mbooloo mi daa bëriwul daa bëri lool ba muy julli suba ba tisbaar jotee ñu néew lool takkusaan noonu ba timis jotoy mbooloo mi bëri lool ak gee ba musalmalee gee la wax loolu wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadalawo laaw maxtaaloo ne nee na bu yow ma tubla sarailu da ngeen xam ni mbàkke milee muy man la rek la bëgg a wax sëriñ tuuba xaadalawo laaw maxtaaloo mas naa wax sëriñ njaase siise radiallahu taala anhu dama amatul jot moo tax gise bi gise bi du yombati waaye danaa la dénk xam ni nii ku ci nekk yaa ngi ci sama ndigal muy alxuraan siiw na am na ko Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo masa wax yéen ngi jëm ci jamono joo xam ni yent moo leen cey musal jekki noppi liggéey loo am doyloo ko siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo daana wax neexum xel aggul ci am xéewal xam ko te ñàkkoo ko ba noppi di ci junj ñi nekkoon ak moom te xamuñu ko siiw na Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na ab ja te mooy marché bu xumbee ba ñépp di ko dugg la ca gën mooy booy dem ànd ak seen waa dëkk ngeen dugg ko bu tasee ngeen ànd ñibbi siiw na nee nañu lu mu ca jublu woon moo di kuy jël soxna jël ko ci say mbokk wallahu alam Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee mas nay wax kenn ci kilifay tubaab yi di jëflanteeg moom jëflante bu tar ngir topp ndigal waaye gisul ci moom lenn lu dul jàmm wér na lool nii la ko gisee ci mbindam xëy na danañu ko gisaat ci kanam ci xaaji téere bii indi naa ko ak la mu ànd lépp wallahu alam sëriñ tuuba xaadalowoo laaw maxtaarlowoo am na ku ko mas a wax yawmal xiyaam jaaxal na ma mu ni ko ña xam la ñuy fekke sax yebu yebuwuñu ca siiw na sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara mas naa nekk ak sëriñ daam jaane radiallahu taala anhu di ko toxalloo ay téere ci biir néeg bi léeg-léeg mu ni ko lii ku ko bind mu ni ko diw bu ko xamee bu ko xamul maanu ca am ku nuyoo sëriñ bi ni danoo raxa mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko kumu mu ni ko soxna Hawa Ubusa radiallahu taala anhu anha la daa génn bàyyi ko fa nee na am na bis soxna si di ni ko dama bëgg a fasanteeg yow kóllëre ndax bis boobee sëriñ bi dani ma mbaa wóllërante nga ak daam jaane ma xamal ko ni mësuma koo àgge sëriñ bi ni ko mat na ko bu yowmal xiyaamee danga nga gis waaju ni sëkk mbooloom du ca man dara dana soxla daam ak ku mel ni daam siiw na sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawoo am na ko masalaaj foo demoon mu ni ko dama seeti woon samay mbokk mu ni ko mbokk bokku jàmm siiw na sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawoo sëriñ abdullahi jaane radiallahu taala anhu bi mu ñëwee ci sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawoo dani ko nu ngeen defoon ci alxuraan mu ni ko daanañ ma limaale ci ñi ko dàq sëriñ bi ni ko noo defoon ci xam-xam mu ni ko téere yu néew laajotoon a jàng daa di jëm si fii sëriñ bi ni ko saxal ci alxuraan loo bëgg a xam ci xam-xam dees na la ko ci xamal te doo ci sonn ba ñoo ñee doon jàng da leen romb sëriñ bi daana ko booleeg ay nit mu di leen mottalil alxuraan mas naa wax sëriñ Tuubaa xaadalahu allahu maxtaarlahu ni ko ñu bari dañuy may wax fii du bërëb bub jàng bërëb bub liggéey la sëriñ bi ni ko Abdullahi fii du bërëbub jàng du bërëbub liggéey bërëbub ndigal la ku fi dikk nu digal la la lay jariñ demal ca sa ndigal siiw na maam Ceerno radiallahu taala anhu mas naa ànd mbooloo ñëw ci sëriñ Tuuba xaadalahoo law maxtaaralahoo ni ko ñii yaama boole woon ak ñoom te booba ba tey laajoo ma leen sëriñ bi ni ko laaje guma leen dellul ànd ñoom am ñeneen ñu mu wax ba tey ñu ànd ak moom siiw na taalibe yi mas nañuy tudd sëriñ abdul qadir jaylaani radiallahu taala anhu sëriñ tuubaa xaadalaw la maxtaalaw ni leen dana dégg loo xam ni ci yéen laa ko xame ñàkk xam li mu waral bëri na ilimaan malik radiallahu taala bu doxoon bayam ci yéen dana leen maral seen gannaaw yi ndax moom tuufal nañu ko ay bëtam mën naa gis siiw na loolu mooy gàttal gi wallahu alam ba tey am na bis sëriñ Tuubaa xaadaloo laa maxtaaloo dégg ñuy tudd sëriñ Abdul Xaadir aljaylaani radiallahu taala anhu mu wax ka ko doon tudd wan ko itam lu tax mu gën a jàppaat sëriñ bi xam ni itam ab cëram moo gën a rëy siiw na wala loolu mooy gàttal gi wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadaloo laa maxtaaloo nee na des na tuuti danaa nekk foo xam ni lu dul hadiya alxuraan ak samay xasida duma fa fekk siiw na Sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaaloo am na bis mu yëkkati baraada di xelli ñu ni allahu akbar mu wàcc ko mu daanu ba mu demee julli ji ba ñëw ni xanaa li ma def yéem na leen ndax day nuru ak yàq te man xanaa duma yàq bu ma ko doon tegaate sama sago damay mel ni kuy xëccoog sunu boroom nguuram gi noddu ñaari baar rekk la sago mooy maam dalu xel dañuy noddu ñaari baar rekk la allahu akbar ak laa ilaha illallah allahu akbar loo nekkoon lu ko gën a wér dikk na laa ilaha illallah foo jëm fudul man doo fa jariñu wér na mboolem ndigal yi loo ci man gaawe ko moo gën wallahu aalam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa wax soxna ummi Mbàkke doomam radiallahu taala anhu malaake mi lay jël si mi ngi ñëw waaye foofa muy barsàq la koy wax boo fa demee mooy sama baay ñafa nekk xamuñu ko mooy sama sëriñ ab taalubeem laa rekk lañu xam siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo n e n a banuma bindee ba tey lépp lu yàlla subhanahu wa taala bind man lay wut dañoo xamul ni mana siiw na am nay wute t w u t i ci waxiin yi ak ba ma andi w o n w a l l a u l a m